jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb amati nañ kontaante ak mbégte mbokk yi comme ni ñu leen koy defalee saa su ñu ngi fii ci arène nationale ci euh, ñu fi woo di PAVC events di prince organisé fi lutte traditionnelle mise bi 4 millions la xale yu bari dugg si nañ bari na ndaanaan yoo xamante ni ñu ngi leen doon xaar tey gis nañ leen Émine François Gomis dugg si na gis nañ général Malika Boy Faye ñëw na Mbine Gueye gi ñëw na yeneen champion yoo xamante ne ay champion lañ ci làmb gëj nañ leen a gis ñëw nañ ci làmb ji fii tey mbokk yi dañuy dugg ci biir xool champion yi nan lañ dugg see xool tournoi bi fan la toll compétition bi fu muy demee su ko defee mooy loolu. waaw maa lay ziare bu baax a baax. ci loo ne. waaw wasaare la daa mel waaw moom la de. wasaare yi nii sama site baa ngi. mais temps yii nu mu demee nii nga wàcc li simple bi. waaw waaw waaw gis nga rek compétition comme que 2021 ba tey làmb amul. 2019 2019 loolu 2020. 2020 2020 ba tey làmb amul moo loolu comme bu ñëwee combat arène day xaw a yéex ñu ne leen wàcc si arène bi quoi incha allah. tey looy bindu léger wala lourd. tey moom léger laa bindu quoi tey tey gars yi dañuy peese quoi xam nga tey damaa xaw a kii quoi <laughs> wàññi poids bi mooy loolu noonu. mais amaguloo combat. non gars yi ñu ngi may na nag ñu ngi may proposé waaw mais nag mooy loolu. naka nga na naka nga na jëflanteeg gars xanaa tey xanaa jël tournoi bi incha allah ndànk yóbbu ko kër mbir ak war jaxaat incha allah la dong laa bëgg bëgguma leneen de. ah ba te ñaan yàlla quoi. waa di sant nag parce que parce que nit bu la nekkalee si naaj bi da nekk si kër gi dama sama fën sa club dañoo sonn si man billaahi wallaahi démb rek dama jóge entraînement après si laa leen gis ñu ni dañuy def réunion pour Tony Junior damaa ñëw rek em si seen biir mbooloo mi bayal bi fees dell maa ngi di sant bu baax baax fan si club 100 pour 100 Tony bi ku si mel ni Doro Gueye moom mi ko jiite Cheikh Baye Fall Sita xama Birane Touré Wërës Pape Diagne Seras ñoon Assane Niang maa ngi ñëpp booy ba si ñoon Amorlo waaw wasaare sama sit waaw Wassare dana xaar incha allah final bi ñu ñëwaat jëlaat ma. jaajëf am na leneen lu ma leen war a wax sax. incha allah Fils de Balla nuyu naa la. waaw ziar naa la baax. ci loo naa la baax alhamdulilah. maa ngi sant bu baax. tey noonu la waajee tournoi bi. non comme ni daan ñëwee rek incha allah ñaan yàlla may ñu rek mu neexee yàlla. mais mel ni euh, mbëri tey bay nañ fi te mise bi xaw na am doole. waaw mbëri yàgg nañ bari ñuy ñuy jël rek. Ah. Ah, kon bu ñu paree dafa ñuy rek incha allah. tey dina yomb. non ñun bëgguñu yomb xamuñu yomb aussi. chaque jour day métti rek mooy loolu yaa ma gën a waaw ah, baax na bonne chance si kanam waaw ah, jaajëf mbër. booy Faye ngi noonu. booy Faye noonu di dugg si. tey làmb. maa ngi lay bëggee bu baax baa baax. mais naka dëkk bi. waaye dëkk baa nii rek bilaahi. mais dafa mel ni keroog da nga ñëw mais affaire yi jotul neex. waaye mais gis nga la. Euh, Sélé sama daan kat la man daan na ma quatre fois daan na ko six fois. loolu mooy lamb daan na ko six fois mu daan ma quatre fois loolu mooy lamb ak gis nga compétiteur bi. bilaahi da ngay ba fàtte barki yàlla. Medina Ba incha allah. mais tey naka nga naka nga waaj a ñëw fii. incha allah gën a a préparé bopp rek. waaw incha allah rabi ah te seetaan naa ci kanam incha na bonne chance kon. macha la bégee bu baax a. Aada ziar naa la. delloo ziar gaynde gi. loo ne. lépp jaamu. mais dafa mel ni ba saison bi tijjeeg léegi neex lee ko de. waaw loolu la yàlla dogal de mais ñu ngi ñu ngi continué wut rek ba tey. Ah. waaw duñ naa waajee tey. tey damaa ñëw rek waaj comme ni ma rek di ñaan yàlla suturaal te xam ne fii moom làmb la rek mais damay ñaan yàlla may ma jël ko rek comme que bëree la rek bëre lañ wax mais en tout cas naa jom fu fay daal su ma yàlla mayee ma jël. mais combat arène taxawagul. waaw taxawagul moom taxawagul wax dëgg yàlla. gars yi di xaar wala looy xaar ko. non ma xaar man moom du ma teggi. déedéet man kay may wër waaye du wër kenn. waaw ah, baax na ci kanam. ñoo bar. Libido ziar naa. waaye si jàmm baax mais tey noonu la waajee parce que gis nañ keroog. Euh, dimanche bi nga ñëwee ñu ñu ñu génnee la parce que da nga ngàdd booy beeg affaire yi demee noonu nu mu woon loolu. loolu demewul dara arbitre ñoo jum rek te ñu ko ñun yàgg noo compétir nekk ay xale ndaw seen kanam yàgg noo biter te kay mosunoo disqualifié si làmb lu bëgg ma juróomi at a bu leen sëgg nañ de en ah, devant loo xam ne dañ koy sant yàlla rek xam ne erreur la woon erreur arbitre woon kenn comprendre quoi parce que koo dóorul ñu génne la loolu doy na war quoi wax nañ baax baax. mais si la musul am te erreur la woon rek. erreur arbitre la nga waaj. waaw tey waaj naa bu baax a baax a baax pour ñëw wane sama bopp incha allah rabi incha allah. waaw ah, baax na ci kanam jaajëf. jaajëf. waaw fay naa la mbir. loo nekk bi naka la. Cheikh Diagne. Cheikh Diagne waaw. tey noo waajee. tey indi confiance rek si lamb ji. Ah. waaw mais tey lamb ji yomb de. waaw war na yomb de wax dëgg yàlla. Ah. dafa a saf baax na ci kanam jaajëf. ok merci beaucoup. boom Gambie boom Casamance. <laughs> jaajëf. ma ne ko boom Gàmbi boom Casamance ak Ngok. booy maye ko nuyu naa la. Ouzin fay naa la. yaa ngi ci jàmm. waa ñu si jàmm. Ah, dafa mel ni jugee woon ngeen Gàmbi xaw ma Casamance. <laughs> waa jugee nañ Gàmbi. ngeen ñëw tey fek si bi 3 millions 600 waa di ñaan yàlla suturaal ñu rek ñu jël ko. Hmm. waaw. mais tey dafa mel ni yomb gaa ngi leen xaar. waa làmb moom musul yomb quoi. làmb moom wax dëgg yàlla musul yomb. mais tey ñi ngi ñaan yàlla mu yomb ci ñun quoi ñu jël ko incha allah. rangelé fee ci suuf tey làmb làmba noonu ma ne ko làmba noonu xoolal rek kee toog ci cumukaay lay jox day jàpp wala day sëlmu tey làmb général Malika ngi noonu moo ngi koy sottil teemu ñu tee may ñun tamit ñu diwoo ko daj na butéel bi nee na ko toogal moo ngi koy sottil moom tamit général Malika ngi noonu sottil na ko mu raay ci kanam ngeeg ci bopp bi diw loxo yi te làmb làmb a ngi noonu delloo ziar Fall. mais tey nu mu demee nii waaj li simple. waaw mais ñëw compétir rek. bilaahi suñu moroom fi nekk xam nga rek ñëw compétir du dara. mu mel ni ba saison bi di jéeg léegi c'est la première nga ñoo ci li simple. waaw waaw maa ngi doog a ñëw ci li simple fii quoi. maa ngi doog a ñëw ci dafa mel ni ñoo ngi lay woonoo ci li ñu woon waaw. seer naa la bu baax doomu yaay. eh Papis yaa bàyyi fenn de na mu naa la. <laughs> rek. mais tey lan moo xew ba nga ci li simple. non damaa bëre mbër nag. mais mais mais dafa mel ni gëj na laa gis ci làmb ji. dafa trois ans ñëw ma ci làmb. lu waral loolu. neew ma woon daal. nee ah. naa nga sant wàcc li simple nga wàcc li teel. yenn saa yenn saa benn booy. da ngaa ñëw pour tous wala da nga ñëw pour seetaan si. non saa benn booy laa indi. sa benn booy nga indi. waaw. mais làmb namm na la nag Papis. trop. Ah. dama saf suukar. Sambala nuyu naa la. oui ñu ngi fay jàmbaar. yaa ngi ci jàmm. waaw ñu ngi dafa mel ni xaw neexoon na de. waaw waaw waaw du ñaan tay dàq rek. Ah. mais tey est-ce que dina yomb ndax naa fi ay ndaanaan ju bëri. ah non góor la du yomb. Ah. waaw foo góor la warul yomb sax. tey ñoo defee ko bi arène nationale da nga génn sa kër rek ñëw dugg si. ah. ma ne ñu defee da ngaa génn rek ñëw dugg la. waaw waaw à waaw moo tax war ñoo mën a maye waaw ndax tey lan a xaar ci yow. ah man jël si. waaw damaa ñëw pour daal. kon baax na bonne chance. incha noonu mbokk yi Boy Faye noonu. tey nag yaram bi dafa mel ni dafa tàng cey booy fay fan yi nag gis nañ neex leegul ndax bi laa may tijjee ba léegi kii di booy fay demagul final mais tey nag yaram bi daa a tàng booy fay ngoog moo nga jàpp ci benn galañ bi ñu koy tëggal muy déglu làmb làmb ngi noonu Boy Faye daa mel ni ñu way da koo dugg Faye nuyu naa la. fay nañ la. baa yaayam jàmm. sant yàlla tey daa mel ni gis nañ beneen coppatiku booy fay dugg changé ci mikaay bi changé fu mu toog mu mel ni tey daa am lu la dee lan la. Ah, yàlla baax na yàlla ànd ak ñun. loolu yàgg nga ma koo na yàlla ànd ak ñun rek naa ko ci yow. yàlla rek rek. point. mais yi bi mu ñëwee ba léegi dafa mel ni sénégalais dafa comprendre ni booy fay tout le temps bu ñëwee ci compétition bi rawatina say supporters da ngaa war a jël jëlagoo ba léegi euh, mentalement lan la def ci yow. non tolluwaay la rek dañoo seen yéene la ñuy waxee rek man nangu naa loolu lépp parce que kii sonn pour nga am ndam kooku sa yokkute la bëgg rek waaw mais yàlla yaatu na nag bi nag bu mag la ku ne dañ ciy jël sa wàll dara jarul xëccoo te ñun ñooy bare suñu biir dara jarul wax ju ñaaw tamit àdduna yàggul te ñoo bokk lu ñuy wuti bu ci benn mbër ba tax nga wax mbër lu ñaaw lu ñaaw dara jaru ko. lu ñaaw dara jaru ko. mbër da laa wax lu ñaaw. yàlla yaatu na lu ñaaw baaxul. daa dégg mbër wax lu ñaaw. eh bàyyi jili sama papa nee na ma bul xam lu bon ba wax ko doomu aadama yàlla na jàmm yàgg. booy fay ngi noonu ndeysaan xale baa ngi noonu xool ko coppatiku bi dafay gën a leer eh la ilaha illallah jëlal ma Malika lu mu yor xoolal ma lee ñaari bopp la àndal xoolal la muy teg ci ci mekaay ba day sotteeku de moom général ndeysaan xale la boo xamante ni macha allah bàyyi leen ko xel ci làmb <laughs> adversaire fils de Balla la hey général Malika keroog de la mu def terrain gaal gi ñu ci bari da leen a yéem xale bi ñëw dugg fekk fa ay moroomam di daan di daan ba finaalu daan taaka fay jël compétition bi barki démb ñu gis ko mu dem ndeysaan Casamance. def fa ay compétition na Gambie def fa ay compétition maa lay siyaar général. siyaar naa la Baye Zine. noo dundee tey. waaye tawfeex rek sant sant yàlla di jëli ci yonent bi di gërëm suñuy ñaari waajur di nuyu waa Malika yëmbal Buun ma Massar waa Alba Ñaax waa Montagne waa Mbëbës di nuyu suma yi nekk si diaspora bi di nuy waa Gambie waa Casamance di nuyu waa Badiana waa Bignona di ñu nuyu ñëpp. foo demoon. Casamance laa demoon Gambie daal. Gambie waaw maa ngi woon biir Gambie. ñaata combat combat nommé la woon wala. woon waaw. ndax foofu moom mooy lool noonu. koo fa doon buñ daan wax wimpi. wimpi laa fa bëri waaw. doon lool wala bëri simple. non lañ ko def. waaw. noo ko noo ko def. waaw ñëw ci làmb ji rek mu xam ni jee mooy loolu noonu di daw di moytu di daw di daw di daw xam nga dem ba làmb ji nar a lëndëm ci laa taxawee may ko tànk mu jàpp ma daw mbot ko. may tànk waaw dama ko may tànk. léegi da ngay maye lu bees nga indi zee maye tànk. lamb mooy toll foofu noonu. des fois nga bëreeg adversaire boo xam ne mën na laa bañ a ñeme mais boo bëggee lamb ji jeex da koy may lu mu yaakaarul ku dawee ñëw nga soo ko bëreeg moom waa lamb day toll foofu. mais li ñu jaaxal mooy G Covid bi bi mu ñëwee mbër yu bari dañu nekk ci baisse de forme mais yow da nga gën a nekk ci super forme macha allah Euh, gis nañ compétition yi bi mu ñëwee keroog terrain gaal gi ndaanaan yi fa nekkoon yëpp yaa leen éliminé daan caaka fay final tey nga ñëwaat ci compétition bi nga duggee gisaat ndaanaan yi dafa mel ni sa daa gën a sedd. waaw day sedd xam nga ñun ay xale lañ te olof day wax xale bu tollee ci liggéey na liggéey ba yaakaar ne tey lay dee ndax boo weesoo xale rek la nga mënoon ba ngay ndaw amaana mën nga koo bañ a mënati dañoo toll ci ndaw yooyu du ndax chaque jour ñu ñoo opté doon bàyyi jili saa boo xëyee yow da ngay dem gàddu sa caméra di xool koo mën a def émission wala actualité làmb ñun nag ay mbër lañ saa bu ñu xëyee dañuy entraîné di jéem a yokk suñ doole di jéem yokk suñu xam-xam di jéem a yokk suñu niveau ci làmb moo tax tamit mooy lool noonu waaw yaa ngi waaj bis bu rëy sa diggante ak Fils de Balla waaw man moom man moom làmb laa fi nekkal pare naa démb tey soog a ñëw yaa ma gën a xam Fils de Balla daa mel ni li daan ci compétition yi ko de non man nekk ma ci loolu noonu déggalu ma lax man làmb moo ma ñor bu doon làmb ji tey la wala léegi léegi pare naa xam nga olof day wax mbër mu ndaw wala xale du préparé day pare te man xale laa pare naa démb tey soog a ñëw. ci compétition bi liñ gis ci mystique nga yor ko bari na trop ñaata nga ci def ci xaalis. non man mystique lii rek laa jox rek samay mbokk samay xarit. lii xaalis koy def. man xaalis lii du dara aar sa bopp la rek xam nga làmb dafa xaw a. aar sa bopp rek loolu du dara aar aalu la rek. aar rek a a kaay Adama kaay ko xel ci làmb la père Birahim Ndiaye doon wax mu ngi noonu barki dem fii ci arène national bokkoon na ci xale bi nga xamante ni moom moo final woon diggante mi Emine François Gomis waaye xale la boo xamante ni cër bi da koy jël ci làmb ba ma ko njëkkee gis terrain gaal gi dama koo laaj ban ñaata at nga am mu ne ma dix vingt ans la am vingt ans lay doog a dugg deux l'an deux mille la mu gisee xam ni loolu dëgg la ci moom muy tas yaakaar. nekk xale boo xamante ni barki démb dégg ngeen ci jàngat làmb ji la ca père Birahim Ndiaye doon wax nee na bu góorgóorloo respecté boppam sàmmaat ay làmbam bu baax lu ne mën na koo am ci làmb tas nuyu naa la. fay nañ la bàyyi jiile. koo dundee waa tey ak dal ak tey rek gars yi maa yab tey. waaw ne ma ma dal. waaw tey gars yi ne ma ma dal bari sëñ Bamba waaw. est-ce que dal arrangé na la. ah est-ce que seet rek xool xam nga ñun ay xale lañ. Ah. te dañoo te dañoo am ñoo xam ne dañuy diriger. waaw lu ñu wax rek ñun loolu la def. keroog da ñëw fii def lu rëy finalu ak franc mu daan la mu mel ni defet boobu da laa met waaw métti na ma mais ay xale lañ. waaw ay xale lañ. waaw te yàlla baax na. waaw. seetaan nga jàngat làmb Père Birahim li mu wax ci yow. waaw seetaan naa ko. loo ci jàng. waaw lu mu wax sunu papa lu mu wax looloo am. lu mu wax looloo am. sunu papa Père Birahim lu mu wax looloo am. déglu naa ko lu mu wax yëpp ba fu ngeen jeexantalee mu ne tas sax bu seetaane loola xam ne lu ma wax looloo am lu mu wax looloo am bari sëñ Fallou nee na boo foggaatee làmb tee ko gëm ko lépp lu mbër bëgg ci làmb da nga koy am lu leer te ñu ngi si ñu ñu ñu ñu ngi si si jaarale bari sëñ Bamba dañuy entraînement guddeeg bëccëg yow boo ma xoolee sax nga xam ne tasañu liggéey bari sëñ Bamba billaahi mais yow puissance rek <laughs> samay xarit lañ ndax su ne mu ngi dugg ci compétition yi di wane ni athlète la entraînement mooy mooy métier waaye liggéey mooy mërëm suuna euh, Fils de Balla nuyu naa la. fay naa la ba Ndiago Guèye. naka ba. sant yàlla baalam la démb ci heure bi fu mu la fekk. maa ngi woon ci lan. ci ci làmb. ci làmb. donc mm-hmm. làmb jooju nu mujjee. non mëri batuñ nag quoi moo tax. waaw luuru mujjul daaw quoi dañoo mujjee séddale drapeau bi quoi. dañ ko mujjee séddale. Ah. Mm-hmm. kon compétition amut foofu. non amul foofu moom. nga jot a ñëw fii. gisaat ay ndaanaan gisaat champion yi yàgg ngaa bokk ak ñoom géew lan la tey. comme dab rek comme dab rek su ma leen comme dab yow xam nga ñoom xam nañ ko firi rek noonu la demee firi rek bàcc. aja bi jiile. borom wasaar. <laughs> ndeysaan. ba jiile delloo ziar. ay ci jàmm. alhamdulilah. dëkk bi wax. dëkk baa nii rek comme ni ko gisee nii rek. waaw keroog da ngaa ñëw teeree gaal gi kenn xàmmewu la nga bëree ñu daan la nga commencé aalu xataraayu lan la waa waaw erreur la woon ci bëre bi rek. erreur la si ñun ñaar ñu doon bëre quoi yow après moo loolu maa ñoo par on kap waaw. mais mu mel ni tey da ngaa ñëwaat dugg si ci compétition bi gis nga fa yeneen daanaan yoo xamante ne dugg si nañ tey loo nar ci compétition waa waaw tey def la ma daan def rek wane fulaa koy rek jom ba lu yàlla def ma xam ne loolu du ma mos a wàcc sama yoon yàlla nag mooy dogal mais sama fulla ak sama koy ak sama li ma mën dinaa ko def di xaar yàlla nag incha allah. bi koo ci gën a xiif. comme xiif ma kenn ku ma dajal baax lool lool loolu leneen la loolu leneen lu ñuy wax la ñoo far. Ada Boy Baol tay am sugeer borom Wassare Lamb waa ji loo nekk sant Serigne Touba wër waaw ñu ngi sant Serigne wër waaw sant li rek nekk mooy sa ñaata sortie ci compétition non ren maa ngi soog commencé mi am suñu nekkoon waaw waaw waaw ba léegi compétition bëreegoo kenn non non non bëreeguma kenn noonu lu laay bëre mun maa bëre lese. yaakaar naa ne état bi moom loo cee bëre la. ah waaw mais ñaan yàlla suñu borom suturaal ñu rek. waaw ndax xale lañ daal. te xale moom soo fekkee dana kilo rek ku ne war nga koo mën a daan. waaw gëm-gëm boobu. ña nga fa ñu si jàmm bu baax. jaay ma bàyyi ji bi. maa ngi am jàmm. alhamdulilah. lu dëkk bi waaw. sant Serigne Touba. sa ñaata sortie. bii mooy sama deuxième sortie. ah première bi nu mu demee. première damaa ñàkkoon. foo ñàkkee. fan la terrain gaal gi adressé fii la ma daanee waaw. Ah. samedi bi passé. tey nga ñëw yëg. waaw ma ñëw rek comme compétition rek. di compétir aale xam ma ñun làmb la ñu am la ñu mën tamit mooy suñu métier. sa normal ñu ñëw bëre def li ñu mën quoi. yàlla waaw yàlla jox ñu ko quoi loolu lañ bëgg. ana waa parcelle. ñii fa. siyaaral ah delloo siyaar. Oh. ndeysaan Zambala ngi nii. ndaanaan la ci làmb. keroog terrain gaal gi moo ko jëloon. doxoon ci digganteem final bi moom ak Obali gis ngeen jël bu rëy bi nga xamante ni daan na ko Obali waaye bëri nañu bokk ci compétition ba keroog moom Zambala mi moo leen génnee boo ko gisee le père Birahim Ndiaye doon wax bu njool yi waxee tuuti ndaama yi génn làmb ji te macha allah yor na taayu mbër yor na jëmi mbër yor na estilu mbër bu ñëwee dugg si nga xool xam ni kii champion la kii mooy Zambala mbokk yi mu ngi noonu ma ngay dongali lii nag beneen daaj la koy jox mu ngi yëg beneen daaj la ndeysaan gën càkkit càkkit gën càkkit gën gën gën càkkit gën càkkit ah, waaw waaw gën gën gën gën gën naa la maa lay fay waaw ñu sant bu baax keroog da ñëw teeree gaal gi mu mel ni boobu moo nekkoon sa ñaata sorti sama boobooy sa ñaata sorti sama première sortie première sortie keroog nga ñëw def loolu am obali final daan ko jël bu rëy boobu lan la. waaw liggéey rek moo ñu ko may. waaw toogu ñoon di nelaw quoi temps Covid bi yëpp nekkoon di liggéey toogu ñoon nelaw. waaw parce que làmb moo suñu métier amuñu leneen dañoo bàyyi lépp ne làmb ñëwaat nga gis champion yëpp dajaloo fu général Malika nekk Boy Faye nekk fi Min Gueye gi nekk fi Fils de Batlene ñëw fi tas yaakaar ñëw nga ñëwaat ci seen biir compétition te xam nañ ni ndaanaan nga ci biir ndaanaan yi nan la. waaw ñoom ñëpp ay ndaanaan lañ. waaw ñoom ñëpp ñu ngi fi lim ñëpp ay ndaanaan lañ waaw mais. lamb la que le meilleur ba si kanam. waaw. danañu gis cekete. cekete. mooy lan si kanam ngay xam lépp. cekete bu bees a ngi noonu. cekete waaw. waaw Zambala cekete. jaajëf Zambala bi mooy sa ñaata sort. bi mooy sama troisième sort. troisième sortie yëpp dafa mel ni da ngaa ñàkk. ah non troisième ñàkkoon comme ça dama kontaagul woon. mais mi ngi si liggéey bi rek. waaw mais bi passé dama laa gis keroog nga ñëw terrain gaal gi. ñu daal la ngay jooy jooy bi laa la ak surtout kilo la daan franc. waaw dama xam ne mënuñu ma rek. waaw moo tax may jooy. samay morom nag samay naataango xam ne yàlla moo dogalagul ma pour ma jël ko rek. may wi si kawam waaw. mu mel ni mbër nga boo xamante ne ay mbiru defet moom waxoo ci dara. mais dañoo rek xaw ma perdre laa Mayaar du xadd. waaw waaw. jaajëf. waaw jaajëf Talfa. Kaaw Gourdin ngi noonu. compétition bi passé fii moom moo ko jël moo jëloon poids léger yi ma nga noonu gis nga ko de daxaw di dongali dama koy topp ndax léegi la mu jël bëre daan kaay ci compétition bi ñu xool ko. moom Kaaw Gourdin champion la ci làmb bàyyi leen ko xel hey Kaaw Gourdin lamuy muy léemu lan la la muy wax lan la ndeysaan ma ngay léemu ma ngay léemu ma nga yor ñaari galañ ak benn benn béjjën bu ñu aw benn morso bu xonq ndeysaan kaay ndeysaan kaay kaay ndeysaan kaay ndeysaan kaay fay naa la. xam nga ki nga daan. xam naa ko bu baax mag la. nga daan ko jël bu rëy bi. daa war a dellu fu mu daa xat nga ko de. daa xat naa ko daa war a dellu. ay loo indi. waaw sant rek. Ah, dina yomb. non waaye dina neex ci yow. ci kàttanu yàlla. lu lu am émotion. te ci kan nga ko bëgg a waxee. ci Waly Seck. nga bëgg a wax. waaw. lan nga wax ci moom. Waly Seck. maa ngi koy ñaanal. Pape Am yàlla ko yàlla yërëm. waaw Pape Am sunu waay woon. Ah. parce que gis naa dañuy lu muy jàppale ne lu doole yi. moom la mu naanaan la. parce que ñun tamit ay handicapé la ñun tamit dañuy ñëw si làmb di bëgg làmb ngir moom. yàlla ko yàlla yërëm yàlla ko yàlla moom jege moom. lenn loolu laa ñaan Wally Seck mooy Wally Seck na dimbali parce que man handicapé laa ndaw laa mënu ma sa bopp dara man léegi yenn saa léegi dañu may buut dëggin ma yëmal. man Yëmbël laa dëkk parce que loolu tali dafa xat tali dama wuuru damaa bëgg mu dama fi léegi ma dëkk Pikine man moom Pikine ne laa bëgg a dëkk sama àdduna yow loolu rek nga bëgg loolee laa bëgg waali wutal la néeg nga dëkk Pikine di yeewoo Pikine di fa yendoo di fa lekkee di fa naanee loolu rek nga bëgg xoolal bàkki Seydina moom loolee laa gën a bëgg sama àdduna loolu moom mis tey ji bu ko defee sedd na loolu sama àdduna man Pikine loolu laa bëgg a dëkk loolee laa bëgg a ñaan ndimbal pour mu jàppale parce man handicapé laa mënuloo sa bopp dara. buggoo buggoo buggoo oto buggoo xaalis buggoo dara na la Wally Seck lijjanti rek nga dëkk Pikine. baax ki sëñ bi non bugguma dara bugguma oto bugguma dara. billaay walaay yàlla gis nga ma ma dëkk Pikine moom ma gën a ay milliards moom ma gënal ma dëkk Pikine moom ma gën a milliards. billaay walaay loolu laa bëgg ñaan Wally ak Bougane Dany. Bougane dama koy ñaan ngir yàlla yënd bi Bougane damaa bëgg mu taxaw jàppale ma Bougane Dany. wutal la nekk. waaw dama nekk Pikine bilaa wala xoolal yéen sax di nga ko am Pikine barke man man bëgguma kenn mu ne ma néeg Pikine laa bëgg. rek bëggoo sax kër. bilaa wala mu ne ma man loolu laa bëgg man Pikine laa bëgg a dëkk parce que man damaa bëgg parce que day ji lépp day ji lu mu am Pikine moom moo ko may day ji lépp day ji fu ma jaar Pikine moo tax am nga man Pikine laa bëgg ngir yàlla nan nan ma taxaw jàppale parce que day ji lu may dund fële dama métti balaa may ñibbi damay am ko billaay balaa may ñibbi yëmbal damay am problème billaay wax dëgg di nga dem Pikine bu soobee yàlla message la boo xamante ne daw na xel waaye message la boo xamante ne daw na yaram ndaysaan nee na soxlawul kër soxlawul oto soxlawul xaalis li mu bëgg rek mooy néeg boo xamante ne saa yu xëyee yeewoo Pikine ndaysaan message bi nee na da koy lancé Wally Ballago Seck ak ki nga xamante ni mooy président Bougane Gueye Dany message boobu yàlla na yegg yàlla nañ ci jot yàlla nañ ci jotale ndax vraiment sama xol tooy na ndaysaan suñu mbokk suñu xarit suñu frère bi ci wax jooju nga xamante ne wax na ko Adama Kaay. combat bi gi noonu ci poids lourd yi ndaysaan tas yaakaar xale la boo xamante ni moo finaal woon bi passé moo ngem boo ngem lu bële li am lu zone li ci ginnaaw ma ngay bëreeg beneen xale ma ngay ngàdd tey est dina yomb ci moom moom tas yaakaar. ndaysaan sànq wax na wax ju am solo nee na ma bàyyi jili seetaan naa Père Birahim li mu wax suñu papa waaye wax ji lépp dëgg la wax ji lépp am waaye ñu ngi ñaan rek suñu borom gën ñoo kàttanal dooleel ñu ba fi nga xamante ne bëgg nañ faa yegg ñu yegg fa ma ne ko incha allahu rabbi yàlla baax na ndax per Birahim seen njëriñ rek moo ko fi tax a toog Père Birahim yéen xale yi rek la fi nekkal wàllam yooyu na ci làmb ndax yaakaar naa ni amul doom buy bëre yaakaar naa ni moom ci boppam gis ngeen la nga xamante ni jot na ko def ci làmb li fi njëriñam mooy mbër yi nga xamante ni dañoo bëgg a teral seen waajur mu accompagner leen di leen wax seeni i di leen wax défaut yi nga xamante ne moom la xale yi di def gis nga tas yaakaar xale ba jël na ko mu daw génn ndeysaan daa njëkk a signalé arbitre bi bañ ma nga noonu ma nga noonu ma nga ma nga noonu ndaysaan arbitre baa nga sifflé ñu ngay lewaatoo ñoom ñaar ndaysaan tas yaakaar a ngi noonu ndaysaan xale ba muy bëreel moo teg ngemboo ngemb Lagos bi lu weex ba xal ñu sotti ci saafara ba kenn mënatul wax weex la wala ñuul la mbër yii man mbër yi jaaxal nañ ma ndeysaan mbëri jaaxal nañ ma ndeysaan mu ngi noonu ndeysaan mbokk yi ndeysaan Boy Faye daan na premier combat ci compétition bi Zambala daan na premier combat am ci compétition bi Fils de Batlen daan na premier combat ci compétition bi ba tey maa ngi ci poids lourd yi ndeysaan tas yaakaar a ngi noonu ci diggu géew bi waaye tey gisuñu Doudou Sané tey gisuñu ëppali tey gisuñu Cheikh Tidiane ñaa ndaysaan tey gisuñu Serigne Ndiaye bu Faas ndaysaan ndaysaan tas yaakaar jël na benn avertissement moom tas yaakaar ndaysaan ma nga di lewaatoo sol na ko eh, tas fañ la yegg sori na tas yaakaar fañ la yegg sori na tas mbaa doo foowee bërëbi tas yaakaar fam jàpp baax na day daan tas yaakaar da koy daan wala déet xale bi muy bëre champion la dina ko daan wala déet tas yaakaar mbër bi ngay bëre fi muy jàpp sori na la ngay may ci bërëb bi bari na bàyyi xel ci làmb ji compétition la benn combat boo ci continuer la nga ca waroon def yëpp nga def ko ci benn combat est-ce que bi dina continuer bàyyi leen xel ci loolu tas yaakaar a ngi noonu fañ ko jàpp sori na ndeysaan moom tas yaakaar ndeysaan ma nga noonu tas yaakaar a ngi noonu caxabal nañ ko caxabal nañ ko maa dina ci génn tas yaakaar bañ na dafa am doole macha allah xale bi dafa am doole doole ji moo tax dafa am doole dafa am doole jàppante na ñoom ñaari xale yi waaye ña ngay déggoo ndeysaan ña ngay déggante ñoom ñaar songale na ko bañ na caxabal na ko lu mu def tas yaakaar daan na ko daan na tas yaakaar daan na daan général Malika ngi noonu mais li ma jaaxal mooy général lépp la indi joxoñ na ko béjjën joxoñ na ko sagoor gis nga ma ngay jëlaat beneen galaj te nee na ma li yëpp dañ ko koo jox xamul lu muy jariñ xoolal la muy joxañ ma ngi ko koy joxañ général Malika lay sax am na lu mu ko ndeysaan mu la koy ëpp Oli Gonzo bii de yàlla bu yaram bi mujjee congelé lu ne ëpp nañ ko ko lu ne joxoñ nañ ko ko général joxoñ na ko lu ne ndeysaan làmb foo waaye ku daanu rus ku daanu am gàcce moo tax xale yi fooyewuñ ko ndeysaan xoolal général Malika nu mu mel da ngay xam ni kii fooyewut làmb ji ndeysaan fooyewu ko déedéet général fooyewu ko ndaysa ndaysaan ñoom ñaar ñu ngi noonu ndaysaan ngeen baal ma mbokk yi dama soj des fois ma reporté ba mu yàgg la fuux baal leen ma te waaj a sifflé sifflé <laughs> arbitre bi sifflé na général Malika ak Ndeysaan général moo leen woon ginnaaw Oly Gën si ngeen jàkkaar lool Oly Gën nag écurie Dalifort la nekk Ndeysaan écurie ba mu nekk bari na ay ndaanaan yu fa ne moom Oly Gën si Ndeysaan Ndeysaan Kaali Sadam léegi moom ci compétition bi Ndeysaan ñu ngi mais damaa gis benn général Malika boo xamante ni dafa mel ni beneen général laa gis bu bees. général bu sérieux général bu fonk bis xoolal ki muy bëreel da koo teeylu bàyyi ko ba mu ñëw mu jàpp del xool li mu ko bëgg a def est dina sotti benn voyage la ko bëgg a def mais est-ce que dina nangu loolu ndax nag làmb foofu góor la nit boo xasee am 80 kilos nit ki nu mënti toll war nga ko mën a daan ci làmb ndeysaan waaye actuellement bu doon làmb la wala bëre dóor dañuy jox favori bi kii di général Malika waaye tey li traditionnel bi ba tey général Malika mooy favori mooy diggante ak Oli Guns maa nga noonu Oli Guns jéem na yoor général bañ na ndaysaan ma ngi koy yootu Oli Guns ndaysaan ma nga noonu Oli général Malika général Malika Malika dëkk Malika nekk ikiri Malika tuddee boppam général Malika cey Malika bi moom bëri na ci moom général nag mbokk yi xam ngeen ko foo ko fekk da koy tóojal waaw waaw looloo taxaw ñu naan plaqué na ko mu bañ looloo taxaw ñu naan kuy kuy soldat jugal maaj général baa ngi doo ko ñëw <laughs> ndeysaan déedéet dóor ko tànk daan na ko daan na daan na bi sifflé ndeysaan bii mooy premier combat Ada Boy Baol jël nañ tànk ba day mbot tànk bi kenn du ko laal dalay mbot dalay mbot maa la wax Ada fort bi yëpp a ngi ci tànk ba dalay mbot mbot yëfam la ma ngay bëree moom aada booy Baol ak xale ba muy bëreel ndeysaan code filage na ko jëli na ko oh ndeysaan xale yaa ngi def lu rëy ndeysaan Ada jëli na ko lan la nar ndaysaan lan la nar ndaysaan lu xale yi di yuuxu lu mu doon ndaysaan ndaysaan ndaysaan aada daan na ko aada booy daan na boobee ay mbokkam xamuñu ne dina dina dem di la may defee ni kii boo bëree ba ma juddu wal na ma bàyyi waay lan moo tax dëkk la lan ma daan rakam rek mu sible ma di ma topp quoi ah, ma ci téeme ba may bëree boobu ay mbokkam xamuñu na ma jox ceet yi ma ko jox mun na ma delloo ceet quoi nit da ngay am respect ci nit kii man ma moroomam du ma ci dara na ma bàyyi waaw na ma bàyyi ndeysaan Faye moo leen wan ginnaaw Blindé moo leen wan kanam ngemb boog lu weex li ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar booy fay Blindé fàqat na ko mu bañ ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar ndeysaan Blindé booy fay Zambala mu nga ca wàllu wee moom it ndeysaan fils de Batlen ma nga nele moom ak Talfa ndeysaan Talfa fils Batlen booy fay daw na jëli ko mu bañ ndeysaan Blindé ak Boy Faye Blindé nag ndaanaan la Blindé Boy Faye Boy Faye jëli na Blindé Blindé war na ko ndomba Boy Faye bañ na Blindé Boy Faye génn na ci génn na ci génn na ci daan na ko Boy daan na Blindé Boy Faye daan na ko Boy daan na ko Talfa jëli na ko mbot na ko tegal na ko daan daan na Talfa daan na Fils de Batlen Talfa de wala déet daanu ko bàyyi bàyyi ba arbitre sifflé ngay doog dem sifflé moo leen boole sifflé moo leen tàqale Talfa oh jël am na non loolu faw ñu indiwaat ko xool ndeysaan bañ na Talfa bañ na arbitre beeg leen woowaat Talfa bañ na waat na ñoom ñaare ngi noonu du waaj a léewtoo arbitre bi waxul dara sifflé waat na Talfa moo woon ginnaaw wala Fils de Batlem moo woon ginnaaw Talfa ngeen jàkkaar lool ña ngay lewaatoo ñoom ñaar ndaysaan Talfa ak Fils de Batlem sikki Fils de Batlem jiital tànk ndijoor Talfa jiital càmm tànk càmmoñ ndeysaan lu mag doon def ba dee bu dekkee ba ko Fils de Batlel lam def léegi du ci delluwaat déedéet du ci dellu du ci dellu ndeysaan Talfa Talfa Talfa ndeysaan Talfa Fils de tas yaakaar nga ca wàllu bee moom it ndeysaan compétition bi muy gën di dem muy gën di neex ndaanaan yi di daan ndaanaan yi di daanu Boy Faye daan na ñaari combat Général Malika daan na ñaar ndeysaan bii mooy deuxième combat tas yaakaar fils de Badlène bii mooy deuxième combat xale yaa ngi noonu ndeysaan Talfa ndeysaan tas yaakaar fam la jàpp baax na ndeysaan tas yaakaar tas daa nar a tas yaakaaru booy bi wala déet ndeysaan làmb ku daan morom ba tas nga yaakaaram tas yaakaar nee na ndeysaan li waral turu tas yaakaar bi moy dañ koy tegal xaalis seen koñ Fils de Batlen jël na tànk ba daan na Talfa Fils de Batlen daan na Talfa Fils de Batlen daan na Talfa. ayca arbitre bi ngi sifflé dox ci diggante sa Kaani Sadam ak général Malika général moo leen won ginnaaw Kaani Sadam moo won gët kanam moom ngeen jàkkaar lool ñoom ñaar nag yaakaar naa bi mooy seen ñeenteelu laale ñoom ñaari xale yi ndeysaan dox ci Kaani Sadam ak. général bu Malika ñoom ñaari xale yaa ngi noonu di lewaatoo ndeysaan ña ngay lewaatoo ñoom ñaar Kaani Sadam Kaani Sadam ndeysaan Kaani Sadam a ngi noonu général a ngi koy déglu Kaani Sadam général Malika général tël na ko plaqué na Kaani bañ na wër na ko ndomba kaani Sada wër na ndombe général Kani Sada wër na ndombe général waxoon naa bu métti la waxoon naa leen combat bu wër na ko ndombe lu mu nar waaye général est-ce ci génn est-ce que ci kaani Sada général rëcc na général rëcc ko jugaat ñoom ñaar doole doole Kani Sada général. doole général laal na ko takk na ko doole yamul doole yamul déedéet doole yamul daan na ko doole doxul jàmb nee na lan la nee na lan la nee na dama ko. Diouf a ngi noonu ndeysaan Adama Diouf maam Mbendis xool ko la muy bàkk may leen ambiance tuuti ci Adama Diouf teg gi teg teg gi teg bi ba tey arbitre bi nga wax ak ndeysaan Papis Général ngay def ambiance bu am solo moom Papis Général ndeysaan diggante ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan arbitre baa ngi noonu sifflet dox ci diggante Ada Boy Baol ak Kaaw Cissé numéro 2 bu Dalifort ndaysaan Kaaw Cissé moo leen féete càmmoñ Ada Boy Baol moo leen féete ndijoor ñaari xale yaa ngi noonu di lewaatoo di xoolante ci bët saan ñoom ñaar ñëpp ay champion lañ ci làmb muy Kaaw Cissé muy booy Boy Baol ndaysaan ñaari xale yaa ngi noonu ndaysaan mbokk yi moment bi may wax ak yéen fils de Batlen City da doon bëre xale bi nga xamante ni mooy Talfa site bi muy am ci digg géew bi fils de moo daan xale bi di Talfa waaye Talfa daa dem bindu recours ci recours ba la mu génnee mooy fils de Badlen bi ko Talfa wëree ndomba bi muy pivoté dóor na épaule am bi looloo waral recours bi moom dafa mujjee àddu ci ki nga xamante ni mooy Talfa Talfa moom la jox ndam li combat bi doxoon ci diggante Boy Faye ak euh, ki nga xamante ni mooy Blindé bu Grand Yoff noonu la demee tamit Blindé dafa dugal recours ñu ne booy fay bi muy pivoté dafa def quatre appuis kon booy fay tamit éliminé nañ ko ci compétition bi kon mbokk yi Boy Faye ak Fils de Batlan ba tey éliminé nañ compétition bi combat baa ngi noonu dox ci diggante ndeysaan Ada Boy Bawal ak ndeysaan Kaaw Cissé bu Dalifor Kaaw Cissé numéro 2 ñu ngi leewaatoo ñoom ñaar ba tey ndeysaan ñu ngi ñoom ñaar ba tey ndeysaan ñu ngi noonu ñoom ñaar Kaaw Cissé ndeysaan ak Ada Boy Bawol ndeysaan ci digg bi yéen a ngi am ndeysaan Franc moo leen féete càmmoñ noonu ndeysaan moom it di bëre ci compétition bi addu bi sifle na moytu sol bi def nga ko def nga ko fooram may nga ko fooram ndeysaan xale bi day ñëw bëre rek mu daw attaqué Franc bu la solee nga bàyyi de waaw waaw bu la rek nga ñàkk sa combat ndeysaan bu la solee nga ñàkk ku nekk am na foor ndeysaan ndeysaan ndeysaan ñaari xale yaa ngi noonu ba tay ndeysaan Franc ma nga noonu ndeysaan ba muy bëreel compétition bi li muy gën Ada Boy Baol jëli na ko jëli na Kaaw Cissé Franc ngàdd na xale bi ngàddaan na ko Kaaw Cissé jàpp na wala Ada Boy Baol fi mu jàpp baax na zongale Kaaw bañ na est-ce que bi dina antu est-ce que bi dina antu. ndeysaan sa zongale bi dina antu Franc bal na ko sànni na ko war na ko ka bi attena day ndeysaan arbitre bi attena na bi attena na jox na ko licence bi fran daan na ndeysaan Franc daan na Franc daan na ba tey yéen a ngi ci combat bi Ada Boy Bawol ak Kaaw Cissé numéro 2 bu Dalifor Kaaw Ada zongale ko dóor ko ci suuf Ada Boy Baol daan na ko jël bu rëy ndeysaan Ada daan na ko jël bu rëy ñoom ñaar teeloy gaal gi parce que yaakaar bëri woon ak moom daan ko waaye ba ñu bëri waatee gis ngeen li bi nga xamante ne li bi door tas tas yaakaar ndeysaan daw na jëli ko mu bañ Ibou Senghor tas yaakaar Ibou Senghor tas yaakaar Mbine Gueye gi ak Libidor bu Kayar ndeysaan Libidor ak Mbine Gueye gi ñu noonu tas yaakaar jëli na ko Ibou Senghor plaqué daan daan na ko daan na ko daan na tas yaakaar ak général Malika Cheikh Diagne mbokk yi moo ngeem boo bi général Malika moo ngeem boo ngeem bi arbitre bi puusal. arbitre. arbitre puusal suñu kanam. mbokk yi. boobu ngeen gis kanam mooy ci diggante Kaw Gourdin ñoom ci lesey la. Cheikh Diagne. eh Cheikh Diagne Cheikh Diagne. eh général Malika daan na Cheikh Diagne. daw na jël ko doo ko mbot. général Malika mbot na Cheikh Diagne mu daanu. vite fait bien fait. Général Malika daan na Cheikh Diagne vite kaw Gourdin kàggoo gi kàggoo gi noonu di dem kàggoo gi noonu di dem. kaw Gourdin wa noonu. Kaw Gourdin mbokk yi moo ñu wan ginnaaw kaw gu demoon ci la say jërëma Zambala Zambala la am fee ah kooku la ah. man Aïcha maa ngi nii maa ngi nee sax ah waa baax ko Kaaw Gourdin daan na ko daanaat na ko cey Kaaw Kaaw Gourdin ngoog mbokk yi ci biti Kaaw Gourdin nee na ko ci abi sifle na mbokk yi sambala Zambala lañ jaakaar lool Zambala a ngi noonu Zambala moo ngi ne tekk di ko déglu abit baa ngi naan leen bëre leen Zambala ngi noonu Zambala ngeen jàkkaar lool abi sifle na Kago demal ci Zambala Zambala fàq na ko mu dem Zambala takk na ko da koy daan carte à appui daanu na Zambala daan na ko Zambala daan na ko. sama reporter bi daa demoon jënd gerte kemb ay Ousseynou la xeer ci kemb heure bii daa mel ne lamb jaa ngay neex nag jege nañ quart de demi finale ya. ati ñu ko jël na ko riñaan na ko bañ na yëlum na riñaan na ko ëñ na ko takk na ko takk daan na ko. Habib sifle na ci diggante Ada Boy Bawal. ak Ibou Senghor abit naan fëgg leen seen tànk yi mbokk yi ci quart de finale yi poids lourd PA Events fi woo ñoo ngi fi Arène Nationale beneen quart de finale maa ngi am franc un mille François Gomis ak Libidor ñoo naa tase fee ci quart ba beneen quart de ba maa ngi am Talfa ak ki nga xamante ni nii mooy Blindé abi bi sifle na Ada xale Parcelles yi tey fees nañu fi Ada Boy Baol Parcelles la dëkk ki nga xamante ni mooy Talfa Parcelles la dëkk ki nga xamante ni mooy Émile François Gomis Parcelles la dëkk Émile François Gomis ak ki nga xamante ni mooy Libidor mbokk yi Franc moo ngeem moo ngeem lu ñuul li Libidor moo gën boo gën lu bees li Franc ak Libidor ñoo ngi jàppante loxo Franc Libidor moo féete à droite moo féete à gauche Libidor daw na lamb léegi tànk demul mbokk yi ñetti quart de finale yaa ngi noonu Talfa ak Blindé ana Boy Bawol Ibou Senghor Émile Gomis ak ki nga xamante ni mooy Libidor mbokk yi moo ngi noonu di wër géew bi eh Ibou Senghor rëpp na léegi Ibou Senghor rëpp na léegi Zambala eh Talfa Talfa Talfa waa noonu Talfa Belende baadoo def baadoo samp bopp la nga def kat appi Talfa Belende eh Talfa Belende plaqué na ko Belende Talfa Belende Talfa Belende Belende li nga def ba wóor na Belende li nga def ba wóor na eh Talfa daan na Belende Talfa daan na Belende Talfa dem na demi-finale xamante ni Ada Boy Baol Ibu Senghor Ada Boy Baol moo féete à gauche Ibu Senghor moo féete à droite maa ngi Zambala ci diggi géew bi ku mu tasel Zambala yi noonu ci diggi géew bi Franc Libidor Libidor añ ko léegi Franc rasu ñoo ngi jàppante Franc Libidor Franc ngi liggéey Libidor ngi liggéey eh Libidor daw na yóotu ko léegi waaye dafa sori Franc Libidor Ada Boy Bawol Ada Boy Bawol ak Ibu Senghor Boy Bawol Ibu Ada Boy Baol Ibou Senghor daw na jël tànk Ada Boy Baol Ibou Senghor jël na tànk eh Boy Baol Boy Baol daan na Ibou Senghor Boy Baol daan na Ibou Senghor Ada Boy Baol Ada Boy Baol daan na Ibou Senghor dafa jël bi bàyyi Ada Boy mu daanu jox nañ ki nga xamante ne nii Ada Boy Baol daan na Ibou Franc Libido ñoo ngi noonu ci digg géew mi Talfa dem na demi-finale Ada Boy Bawol dem na demi-finale Général Malika ngi noonu dugg ci digg géew mi xanaa kon Zambala la Général Boy Malika ak Zambala Franc na jëbi door ñoo ngi lewaatoo Franc Libido ñoo ngi koy manœuvre Franc Libido abi jëlal bërel bërel Libido Franc Libidor Franc Libidor Libidor da doon clamé nee na ki nga xamante ni mooy Franc da koy mbéj Franc Libidor Franc Libidor ngi am ci benn côté bi Zambala général Malika Franc fa mu baax na Franc Libidor Franc Libidor abi sufle na ci ki nga xamante ni nii mooy Libidor ak Émile François Gomis mbokk yi demi-finale yi poids lourd Ada Boy Baol dem na demi-finale ki nga xamante ni mooy Talfa dem na demi-finale ñi nga xamante ni nii ñoo des ci quart de mooy général Malika ak ki nga xamante ni mooy Zambala ku ci daan dem dem demi-finale Franc Émile François Gomis ak ki nga xamante ni mooy Libidor ñoom ñaa ñoo ngi ci digg géew bi ñoom ñaa tamit ku ci daan dem demi-finale Zambala Zambala général Malika abi bi sifle na ci diggante Malika général Malika Zambala général Malika daw na jël ko Zambala général Malika Zambala général Malika eh, xale yaa ngay bëre Zambala général Malika abit baa naan leen bëre leen Général Malika daw na Sonko léegi Zambala Zambala daw na jëli Général Malika génnaat na Zambala Général Malika abi baa naan bëre leen taxawaay bi daa yàgg Général Malika daw na jëli ko Général teq na Zambala Zambala bougéwul Général Malika Zambala Zambala Général Malika Franc yu lewato Zambala Général Malika Général fàq na ko général fàq na ko léegi waaye Zambala ngi ne tekki di ko déglu général Malika Zambala ku nekk ñu bal na sa morom ñu ndengeñante ñoom ñaar Général Malika Zambala Général Malika Zambala mbokk yi ñoo ci quart de Général Malika Zambala Franc Émile François Gomis ak di Libidor ñoom ñaar ba léegi ñoo ci digg géew bi Aada Boy Bawal moo daan Ibou Senghor Talfa moo daan ki xamante ni mooy Belende eh Franc daan na eh kii daan na ko Général Malika daan na ko Général Malika daan na Zambala dafa sàcc tànk ba plaqué ko Zambala comprendre Malika dem demi-finale Ada Boy Baol lay am Talfa beneen quart de finale baa ngi noonu bërewu leen Franc ngi noonu ak Libidor mbokk yi demi-finale yi leer na léegi Talfa dem na demi-finale Ada Boy Baol dem na demi-finale Général Malika dem na demi-finale Franc moo ci des abit bi àtte na mi-temps boog moo ko ak ki nga xamante ni nii mooy mooy Franc demi-finale yi léegi leer na mbokk yi ci demi-finale Kaa Gourdin la laaj xam Kaa Gourdin mbokk yi moo ñu ginaaw ginnaaw ngi ci demi-finale yi. mbokk yi Gagou 2 ngi noonu xale mbokk yi Kaw Gourdin ak Lamine Ndiaye Kaw Gourdin plaqué na ko eh Kaw Gourdin daan na ko daan na ko daan na ko Kaw Gourdin dem na final Kaw biti Kaw Gourdin biij na ko takk na ko daanu daanu na daanu na mbokk yi Ada Boy Baol ngi noonu Franc a ngi noonu ñoo ci demi-finale poids lourd yi Franc ngi fëgg fëgg na bëtu ooma Ada Boy Baol am na lu muy ñaan di ko ko demi-finale baa ngi noonu Général Malika Talfa Ada Boy Baol ñaan na am na lu muy jat moom Ada Boy Baol abit baa ngi wax ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ laaj Ada Boy Baol laaj na Franc arbitre bi sifflé na Ada Boy Baol Franc demi-finale poids lourd mise bi di 1 million 3 millions 600 Boy Baol Ada Boy Baol Général Malika boog ngeen ju ngeen jégal ma Ada Boy Baol Franc Ada Boy Baol Franc takk na ko ci wet gi Franc takk na ko ci wet gi Franc takk na ko ci wet gi moo ngi koy mbot eh Franc Franc bul def loolu Franc bul def loolu moo ngi koy takk Franc Ada Boy Baol Franc daan na ko daan na daan na ko daan na Ada Boy Baol Franc daan na doole Franc daan na Ada Boy Baol Franc daan na Ada Boy Baol ci ñu ngi noonu Talfa ak général Malika ñooy waaj beneen demi final poids lourd bi ñu ngi noonu ci seen dernière réglage yi wala ci seen dernière gàllaaj général bu Malika Talfa. arbitre ba sifflé na jox nañ avertissement général Malika. mbokk yi abir jox na avertissement ki nga xamante ne mooy général Malika. arbitre ba sifflé na. ñoo ngi ci demi final bi. poids lourd François Gomis dem na final. ki nga xamante ni mooy. mooy Ada Boy Bawol. général Malika Talfa. ñu ko ca digg géew ba. général Malika Talfa. général Malika jàppante nañ bàyyante waat nañ général Malika eh Talfa na tànk général Malika eh Talfa général Malika Talfa Malika Talfa général Malika Malika arbitre plaqué na Malika plaqué na na ko daan na ko arbitre bi sifflé na arbitre sifflé na final poids léger bi Diène Diouf Kaw Gourdin Diène Diouf Kaw Gourdin Diène Diouf Kaw Gourdin Diène Diouf Kaw Gourdin eh Diène Diouf atul Diène Diouf atul Kaw Gourdin lama ji ñoom ñaari bërikat lañ ñoom ñaar. Diène Diouf Kaw Gourdin. waaye Diène Diouf. moo fi la gauche Diène Diouf lañ jàpp. mooy dafa mën a bëre. Diène Kaw Gourdin. attention Diène Kaw Gourdin. Diène Diouf Kaw Gourdin Kaw Gourdin li ngay bëre noonu baaxul. Kaw Gourdin lam ji day neex. ñu ne ay Kaw Gourdin. Diène Kaw Gourdin Dieng Diouf arbitre bi sifflé mu dox ci kaw may ko dara moom Kaw Gourdin waaye fekk na fa lu dëgër tamit fekk na fa Kaw Gourdin bu taxaw di ko xaar Dieng Diouf Kaw Gourdin xale yi bëri nañ bëri bu rafet Ouzin ku nekk am na ngemb Dieng Diouf am na ñaar loxo ci ngemb Kaw Gourdin am benn loxo ci ngemb tekk na ko tekk na ko na ko Kaw Gourdin daan na Dieng Diouf final poids léger ba Kaw Gourdin jël na ko Kaaw Gourdin tekk na Diène daanu. Ousseyn ñaata a ngi ñaari yoon bi. Kaaw Gourdin ak François. final poids lourd bi Général Malika ak Emile François Gomis. Ousseyn ko ñaari yoon. Kaaw Gourdin daanaan la. kookoy doomu Dalifor Malika mooy dugg si noonu def na ay débat débat dugg na ci biir asante bi arbitre yaa ngi wax ak ñoom wax ak moom général Malika Émile François ñoom dem final poids lourd tey le 3 avril 2021 22h54 23h mooy 5 minutes 22h55 23h mooy 5 minutes général Malika Émile franc ñoom ñoo daje final poids lourd ñu ngi noonu ku ci nekk a ngi say débat dépp final poids lourd baa ngi noonu ndeysaan ñoom ñaar a ngi ci digg géew bi ñoo war a bëre final bi mbapat mi jeex tey acca ñoom ñaar buñ bëree final bi rek lamb ji jeex Franc ak ki nga xamante ni moo di général Malika ca ñoom ñaan ñu noonu général Malika Franc ay ca débat déb yaa ngi général Malika pareegul ci ay débat débam Franc taxaw na jàkkaarloog moom mu upp ba doyal général Malika Franc ñoo dem final tey Prince moo woote woon PAB Evans ñu ngi ci seeni débat déb seeni dernier réglage su gàllaaj mystique te lambu jaa ngi noonu ndeysaan ñaari dugub ji daal di leen am na 130 mille carte finale yi 32 500. Mouhamed Bayor kooku Mouhamed Bayor doomu la Malika. équipe François Gomis merci mbokk yi général Malika ngi noonu ak Émile François Gomis. Franc. final poids lourd baa ngi noonu abit baa ngi wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ final poids lourd baa ngi noonu général Malika Émile François Gomis 23 heures pile le 3 avril 2021 PA Events prêt PA Events mooñ fu woo mise bi 3 millions 600 francs daw na jël tànk ba Émile François Gomis taw na jël tànk ba Général Malika rasu mu bal ko añ ko bàyyante nañu Franc Général Malika Franc Général Malika Franc Malika Général na ko léegi Franc bañ mu plaqué ko bal ko eh Malika Franc Général Malika añ na ko Franc bañ Franc wàcc na Franc wàcc na baadu ko plaqué Franc wàcc na Général Malika Franc Général Malika Franc Général Malika dafa dugal bopp bi ndengeñ ko Franc fi mu doon am problème gisul Général Malika Franc Général Malika Franc général Malika Franc final poids lourd PA Events mise 3 millions 600 bàyyante waat nañu ñoom ñaar Franc général Malika mbokk yi général Malika général Malika Talfa la daan léegi Franc daan Ada Boy Baol Général Malika Franc bëre nañ fi léegi bëre bu neex Général Malika Franc ñoo ngi nekk ñeente Général Malika Franc Franc jàpp na ci loxo Général Malika bu nekk jàpp na sa loxo moom ñoom ñaar Général Malika Franc Franc bi ne léegi suuf si eh Franc jël na tànk Général Malika ba du ko mbot Franc jël na tànk ba Franc jël na tànk ba Franc nga bëgg a plaqué waaye Général daa bañ Général Malika Franc eh Franc Général Malika wet ga Général lañ ca wet ga Général Franc eh Général fa nga jàpp fa nga jàpp baaxul. Franc Général Malika Franc Général Malika dem na ci wet ga takk na ko takk na ko day tëdd wàllu koy wër na ko ndomba Franc wër na ndomba Général Malika Franc wër na ndomba Général Malika da koo bëgg a daan Franc Général Malika Franc Général Malika daanoogul Franc Général Malika Franc Général Malika Franc Général Malika Franc wër na ko ndomba Franc Général Malika Franc Général Malika Franc war na ko ndomb Franc Général Malika Franc war na ndomb Général Malika Franc war na ko ndomb daan na ko Franc daan na Général Malika Franc daan na Général Malika Franc daan na Général Malika Franc Général Malika. Lamb ja jeex na. Franc Général Malika. Franc daan na Général Malika. Jaaro bi daanatina. Franc daan na Malika jël na ba 3 millions 500. PAB Evans mu ngi noonu. 3 millions 600 ma. hay waay Franc jël na ba.